salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum li xew TV li xew TV maa ngi leen di nuyu di leen siyaare pour ngeen jàllale ma samay live pour ngeen jàllale ma sama live bi yéen waa li xew TV li xew TV nuyu naa leen di leen siyaare waa di nuyu Sénégal lépp fépp fu waay ne ci àdduna bi rek di suivre li xew TV ñëw ngi lay nuyu di la siyaar waaw tey ma ñëw am benn xalaat boo xam ne dama xëy am benn xalaat ci réew mi am benn xalaat ci gouvernement bi am benn xalaat ci Macky Sall bu ko jox benn conseiller boo xam ne daf ma ñor quoi te conseil bi maanaam bu ko bu ko jëfee rek su ko jëfee Sénégal man na avancé ndax dañu xam ne sa temps yi mujjee def Sénégalais yi am na ñu ci ànd ak moom ne ko baax am ñoo xam ne nañ ko baaxul kon maam mu war a mën a xalaataat li tax ndax nit bu nee vie am na lu mu ne wii bu nee non am na lu tax mu ne non kon maam ñi nga xam ne nee nañ war na mën a xalaat lu tax ñu ne non waaw pour woo leen ci ban xalaat. xalaat bi ma am man mooy dama bëgg ndegam cinq sept defoon na ko am ñu mu àndal di liggéey ñoo xam ne ci nguuru Senghor ba léegi bu Abdou Diouf bu Ablaye Wade ba ci nguuram ñi ci muy ay pas yoo xam ne maam tey c'est normal ñu jël retraite dem seeti leneen lu def mu amaat beneen conseil boo xamante si nii moom mu tas assemblée nationale tas leen di spécial ñi nga xam ne àndoon nañu moom sept yi di liggéey ak moom ñëpp mu jël leen dégage leen. ale tout képp koo xam ne liggéeyuñu ci septembre Macky Sall rek ñu supprimer la nga dem feneen liggéeyi fa mu jëlaat ñeneen ñoo xam ne ñu bees lañ jëlaat yeneen xel jëlaat yeneen ay liggéeykat yoo xam ne Sénégal ñor na leen réew mi ñor na leen bëgg nañ askan wi bëgg nañ senegal yi te ñu dimbali ñu di ñu nax waaw te loolu yi yaa ñu ci mën a dimbali yow nga xam ne senegal yi tegaat na la ci bopp réew mi. nga war a nekkul nga nekk président ñëpp ñëwut ak am ñi la wateel ak ñi la wateelul waaw yaay président ñëpp ñi la wateel ak ñi la wateel ñëpp yaay seen président ba tax na ñu ngi lay ñaan waaw cinq yi nga xam ne moom la la sénégal yi falaate ah yàlla dimbali la ba nga mën ko eggale ci jàmm ak salaam tey ñu lay wax benn conseil boo xam ne boo ko defoon daal xaj na Sénégal cinq yi sax maam lépp lu ñaawoon ci sa temps yi rek cinq ans yi mën rafet kon cinq yi war naa mën a rafet ba mel ni dara mu sañaaw ci kaw nga supprimer ñi nga xamante ni ah, ñoo àndoon ak yow ñu bari nga supprimer leen jëlaat ñeneen ñu bees pour ñu mën a liggéey Sénégal pour Sénégal mën a jëm ca kanam waaw Lu Xew TV nag bëggoon naa ngeen jàlleel ma live bi nii ba Macky man ko dégg ñëpp ñi nga xam ne am nañ seen xalaat it ñu mën koo dégg xam ne lii may wax nii lu yenn maanaa la ndax xam nañ ne maanaam ñi nga xamante nii maanaam. Sénégal daal bëgg nañ beneen réew boo xam ne réew bu bees la ci cinq yi beneen comportement idée bu baax boo xam ne sénégalais yi danañ ci mën a kontaan ndaw ñu am liggéey ñu def ay usines yoo xam ne ndaw yi danañ ci mën a liggéey gaa ay tëli dëgg la tëli dëgg la waaye tamit man amoon naa benn idée boo xam ne nii comme tey bu ñu liggéeyoonoo yéen ay yoo xam ne ndaw yu bari danañ ci mën di liggéey xam nga ak yeneen société yoo xam ne ndaw yi danañ ci mën di liggéey Sénégal boo wàññee xëy boo boo fexee ba nit ñi amoon xëy rek yu bari dootuñu ko tal yu bari dootuñu ko tal kon ñëpp dañ mën a gis seen bopp ci réew mi waaye bu dee réew mi dafa jëm benn côté rek jëm benn boor yàgg-yàgg réew mi day metti tamit ñu xa dimbali xale yi nga xam ne ñu ngi jël yoonu mbëkk mi di dem te war na nañoo mën a tekki fi seen réew te xam ne réew Sénégal bi réew la moo xamante si nii jàmm am na fi lépp am na fi waaw am nañ or am nañ jamaa am nañ pétrole am nañ gaz kon réew moom c'est normal war naa mën a te réew yooyu ñuy daw di wuti li Sénégal am amuñu ko te ñoom jël nañ seen i doomu réew wutal leen ay liggéey wut fa ay usine ba nit ñi mën faa toog di liggéey kon yéen ñi nga xam ne yéen ñu jiite kon maanaam war ngeen a mën a exploiter suñu suñu koom-koom bi ne suñu Sénégal gi ba nit ñi mën cee gis seen bopp mën cee jariñu ndax xale ñi ngi dee ji géej te tey bu doon wër réew Sénégal yi ëpp seen doomu Sénégal la waaw kon yéen ñi nga xam ne yéen jiite réew mi nga la da ngeen ñoo war a jàppale jàppale jeunesse bi jàppale nit ñi jàpp def ay hôpital ci réew yi. ci Sénégal def ay hôpital fu mu di hôpital ngeen def ko te bàyyi caaxaan yi te bàyyi tontonte bi te bàyyi te liggéey daal liggéey Sénégal Sénégal ñëpp mën cee gis seen bopp waaw Lu Xew TV Lu Xew TV bëggoon naa ngeen jàlleen ma samay live ba mu mën a war a dund ndax Macky mën koo dégg xam ne lii ma ko wax nii conseil bii ma ko jox nii conseil bu baax la bu ci toppee rek incha allah dana am ndam conseil bu baax la bu ci toppee rek dana am ndam incha allah.